di leen baalu àq di ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñaanal sunu kilifa gaa ji bugaan yàlla dolli ko jàppale dolli ko sàmm aar ko aar njabootam musal ko ci ndog ak bépp gàllankoor di defal ko ay yéeneem yépp nag ñaanal sunu technicien sunu caméraman muy Ndoye Barham ci moom nag lañ jébbul waaye man li ma jaaxal sëriñ boo xam ne buy lekk doo lekk buy naan doon naan te da ngay toog muy lekk du la woo asan loo ci xam day nelaw nga naan lan daa tiitee ci nelaw naan seetal loolu ñaanal Xasan ak Saalix ñu ngi waxoon ci bis bi nga xam ni lépp lu waay mas a def ci àdduna baa nga mas koo wax baa nga dox ko des na la ko tegal ci sa kanam ne la lii lépp yow a asan allah <laughs> xere na xam naa dina métti ah dina métti dana saf de yan yàlla dooli suturam <clears throat> yàlla bu ñu rus moo tax mu ne yawma izin tu'radun asan suuf ci boppam fu ñu mës a tëgg làmb baa ñu tëgg fa sabar baa ñu tànt fa gàmmu baa conférence baa tànn biir baa ndaw ràbbin lu mën doon suuf boo taxaw def fa dara suuf ba dina waxal boppam ne yàlla Assane Diop taxaw na fii tànt ci man fii ci parcelle conférence Iran ñëw na wax na fii lii Alioune Sall wax lii dara du nëbb na ko ku yeewu rek waaj du dëgg waaji rek rek xam nga sunu borom damay wax ni ku amul kilifa te moom lépp moytu ko farata la te yàlla amul kilifa ku ko yilif yàlla amul kilifa ku ko yilif kenn yilifu moo yilif lépp kenn moomu ko moom moom lépp a tax ku amul kilifa ti bari doole te am sañ-sañ dañ koy moytu te mooy sunu borom ku dul yàlla amoo doole amoo sañ-sañ amoo kàttan amoo xam-xam la preuve su la melentaan màttoon léeg nga dof asan bu jaan balang balang woon génn fi rek nga naaw ndooy tëb ma tëb fii yëpp faraxoo jaan menn jaan rek jaan su génnoon fii rek ne nii ut suñu rekk fi la émission bi yam jaan ak doomu aadama ni mu toll ak tiitaram ak waxam jure yëpp bu jaan ne tëll mu naaw amuñu doole kenn am doole am sañ-sañ am xam-xam am mën-mën yor lépp de xën yi mooy sunu borom ku dul yàlla faqiir nga fakiir mooy ku am lu mu soxla ku amul lu soxla yeewoo na ci àdduna bi ku gis am na lu mu soxla faqiru ila am na faqiru ila al maal am na ila cheyin axar am na moo tax su ëllëgee lépp la ñuy teg Assane Diop yaa waxoon lii Assane yaa defoon lii nga ne ah bon wii loo ci xam nga ne xanaa yàlla nga yërëm ma nga ma wandee boo ma yërëmul xam naa fa ma jëm fa may dégg te gisaguma ko muy safar xam naa fa ma jëm yërëm ma rek ma xaj naa ci sa may xaj ci sa kàttan xaj ci sa wërsëg tu'raduuna laa taxfaa minkum xaafiya mu ne fa am maa man uutiyee nag képp koo xam ni jébbal nañu ko kitaabu woo téere ba ñu def jëfam bi yi ñu teg ko ci loxo ndey jooram kooka xasan na xelam daal fa yaqulu day wax ne haa umu uqroo kitaabiya aqra woo ko ci kitaab yi leen xool leen sama téere jëf bii ñu ma jox ay waaye gars yi liir leen ni ci yàlla dafa texe naa mu ngi mel ni xale yi bu examen amee ñi ci at mi ci góor ak ñi at mi ci jigéen ku ci xool tableau d'affichage bi di nga yow ah, ndooy kaa xool at me naa am naa am naa yow mal xiyaam buñ nele le asan am sa loxo ndey nga ñëw ne yuuxu daw ñëw ne ah, ah am naa li ma liir leen liir leen te foofa ñëppay mën a liir ñëpp uqra'u kitaabiya liir leen am naa sama examen ay waay admis naa waay jigéen ji yuuxu ne ay waay admis naa waay walaay haa umu uqra'u kitaab yi gars yi xool leen sama téere liir leen tableau bi at maintenant sama am naa diplôme bi <laughs> mu ne nag ci diplôme boobu ca lay wax ne man de inni zanantu man foog naa ne anni man ni mulaaqin xisaabiya danaa am liggéey ndax diplôme bi dégg naa ko ko am da am liggéey kon jot naa ne dinaa am liggéey dinañ ma régler régler bu baax yóbbu mal aljana bu laaxi ne xisaab yi ndeysaan ah, am na diplôme gannaaw dañ ne ko ko am ñu yóbbu la nga liggéey nga am ko da nga naan kon gars yi xam naa ne man dinaa liggéey inni man mii zanantu xam naa ne an nii mulaaqin danañ ma jox xisaabiya sama laissez-passer aljana waaw danaa dajeeg rek léegu neex muy laissez-passer ñu ne maa ci aljana nga jëm nee na foo fi ichatin radiya ndeysaan mu bég nag invité xarit yi def arrosage nag pour bagam wala euh, entrant sixième wala euh, nu mu tudd brevet am yëpp mu feetal ko nag waaw feetal ko nag kontaan fa huwa fi ishatin radiya nag waaw xanaa xamoo ne dund bu neex mu ngi ci am li nga bëgg dund bu naqadi mu ngi ci ñàkk li nga bëgg ko am loo bëgg rek sa dund neex na ko ñàkk li nga bëgg rek sa dund naqadi na yàlla na yàlla defal dund bu neex te mooy jaamu yàlla nag gu ànd ak ak kàttan yal ñu ko yàlla defal wa fi ayshatin raadiya am na ñoo xam ne amuñu benn problème dama koy xale yi bu nekkee daar yi may leen yéen buur yi dàqu ñu leen lekk yàlla xam na ko buur yi dàqu ñu leen lekk te loolu mooy dëgg parce que itam lekk gu ànd ak xel mu dal mooy raadiya lekk bu ànd ak xel mi daal nag musiba la koo xam ni foo jëm wóoluwoo looy lekk wóoluwoo ndox mooy naan wóoluwoo foo war a fanaan wóoluwoo yow sonn nga sonn nga ci fitna pur nga ne boo xamul noo koy regle te loolu mooy dëgg <laughs> am na ñoo xam da nga leen di yërëm bala ñoo lekk xaw a dee dëkk bi yëpp yëg ne danoo xiif inni zanantu man xam naa ne anni mulaaqin danaa daje xisaabiye sama sutura xisaabiye sama ndam xisaabiye sama xéewal ndax niñ ma ko joxe accolade moo may wanal ne diplôme bi après danañ ma jox liggéey di ko am liggéey nag foo fi ichati radia ku am la bëgg yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci dund bu neex <laughs> dund bu neex eh, du ay ndambeeg yii de ay ndambeeg ay maafeeg ay ceebu mbaam xuux yi asan di lekk ak eh, Euh, euh, aïcha radiya mooy jàmm rek sutura moom boo ko amee yaa ngi ci dund bu neex asan ceebu keccax bu ko jàmm lalee moo gën musi bu musiba lal waaw ceebu keccax bu jàmm lal yemul ak dara yemul ak dara a tax fi aïchati radiyatin ñu ne waaw xéewal googu nag mu ne fii jannatin aaliyatin mu nekk ci immeuble bu kawe nag waaw immeuble boo xam ne garab yi dañoo wàcc dugg ci biir fenêtre yi dugg ci biir néeg yi doomi tiim Assane Diop Assane jaaxaan doom boo soxla mu wadd ci sa loxo amul yóotu kon day doon coono te aljana amul coono sa bëñ yi dañ koy raase parce que su amee bën-bën boo lekkee di ci dugg kon da ngay secrétu kon aljana neexu salaamun qawlan min rabbir rahim jàmm rek xéwal rek loo soxla fi nga tëdd mu tegee sa ti ñamu aljana li tax mu garaaw amul xollit ti booy lekk sàq mi doo ko def parce que sàq mi dafa métti yëg la mu ngi mel ni boo àndik sa soxna début bi yépp coono la waaye yàlla nee na ndox mi buy génn ci góor gi yég yëg boobu dootul ànd ak sagoon yëg-yëg boobu aljanaa ko daq fu booy lekk téeméeri junniy bànneexu sëy yi ci adduna bi yëpp buñ ko boolee benn yëg-yëgu lekk pomu aljanaa ko dàq jarul daanu de Assane Diop waaye koy lekk nag mbaam xuux comme yow nag baaxul seetal lool sa karaw di koy yëg sa we di ko yëg sa der bi di ko yëg te fii sunu lekk làmmiñ doo nga ko yëg moo tax adduna amul lu neex lu saf ak lu wex fi am bu safee nga siicu su wexee nga gaññi soo sibbiroo ñu àbbi wex mooy lingom ak kaani boole ko ak laaxu bisaab nga di ko lekk ñoo lay abal tan ba sa làmmiñ ba nga tane làmmiñ jëlaat fonction ñu delloo limoom ak kaani moo tax lu neex amul bu lu neex amoon boo sibbiroo du tee boo lekkee mu neex lu wex moo am ak lu saf bu safee nga siicu su wexee nga gaññi moo tax góor ñi maye seen yaay ak maye kër fa ngay toll la may sa kër papa maye sa yaay maye naa la suñu kër may naa la Sénégal may naa la pale baag la fa netti moomuloo ko waaye xaal la xaal la xaalu yëg-yëg ci ndox mi wàcc ci nga dem ba bokkatuloo nag boo dajalee bànneexu say yépp ak cafka yu neexi lekk benn poma ko dàq ca aljana foofu yàlla bu ñu rus yàlla buñ jaaxle ayca bu suba ci waxtu incha allah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم aouzu billahi mina sheytaani ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Mansour di xalifa général des Tidianes yàlla na ko yàlla dolli wér sëriñ Mansour Sy borom daara ji sëriñ Ahmed Tidiane Sy sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin ñoom ñëpp yàlla na yàlla yokk seeni leer jaar ci sëriñ Pape Malick si sëriñ Maodo si mu suñ maa Abdou Aziz si Dabaax sëriñ Mansour si Jamil sëriñ Mbay si Abdou ak mboole seen njaboot suñu maam Seydi El Hadji Malick si ñu ngi ñoo ngi yëgal leen bés bu mag di bés bi nga xam ne mooy bésu daara suñu maam Seydi Aboubacar si jàpp nañu ko nag incha allahu samedi le 27 avril 2019 foofu ci ëttu suñu maam Seydi Aboubacar si ca Tiwaawoon ñu jot ndigal nag ci kilifa gi ki nga xam ne mooy responsable daara ji di El Hadji Ibrahima Badiane ñu gën ko xam ci Iran Ndaw di ko yëgal nag mbokk julit yëpp képp ku ashadu an laay ilaaha illallaah rawatina ñi nga xam ne dañu yor daara alxuraan waaye itamit daañu fa waxtaanee njëriñu daara taxawaayu daara daaray démb ak daaray tey ñu jël bés bi nag dellowaat ko ki nga xam ne moom la ñu koy jaglal at mu jot mu di El Hadji Bokar Ndiaye di ko yàlla baaxal di ko xam ne lu mu am delloo na ko ci daara kon El Hadji Bokar Ndiaye bésam baa ngi noonu Iran Ndao nag képp koo xam ne mos naa taxaw sa daje képp koo xam ne mos na laa defal waxtaan kon mu ngi la ko yëgal di ñaanit nga ñëw fekkee bés bi assalaamu aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim.